asalaamaaleykum gars yi asalaamaaleykum gars damaa bëgg kii di oustaz Iran Ndao kii di oustaz Modou Fall oustaz yépp noppal naa leen ci weeru koor gi bàyyi leen ma tontu man Ahmed Khalifa ñas Ahmed Khalifa Niass da nga bëgg a jaxase diina ji da nga bëgg a yàq diina ji man du ma ko nangu ban shariha moo la jàngal ne am nga droit ëmbal jabaru jàmmoor ëmbal ba pare moo wax la nee nga am nga droit ngénte ko bu la neexee nga yóbbu doom ji bu la neexee nga bàyyi ko fi ban shariha nga ko jànge ëmbal jabaru jàmmoon nga ne mi ngi ci sariya loolu am na fan nga ko jàngee ban sariya moo la jàngal loolu alxuraan daf ne wala taqarabu zina bu leen jege njaaloo waxuma laag ngeen di ko laal wala taqarabu zina ndax innahu naka moom njaaloo kaana nekk na faaxisatan jëf ju ñaaw kon njaaloo baaxul moo tax boo njaaloowee te nga am jabar ah danoo war a gas gàmb ba mu xoot jël say tànk dugal ko ci saaku daan lay def ci kàmb gi suul la ba mu des sa bopp bi ñu lay sànni ay xeer ba nga dee sariya rey na la boo amee jëkkër noonu boo amee jabar noonu bu fekkente ne nag ay célibataire ngeen dañ leen war a dóor ku nekk si yéen téeméeri yar te téeméeri yar yi dañ koy ensonné waaw lii la sariya wax kon Ahmed Aidara arrêtel yërënt bi dellu ne njaaloo mi ngi commencé wa nazara xoolante boo leen xoolante wee yéen ñaar fa nisaamu ñëw mooy muuñ nga ree mu ree foofu xam nga day tàng fa kalaamu doog a ñëw mooy lan wax ju neex ja papa moom papignon moo charbon de bois ah dama la gis rek bëgg la da nga yóbbu sama li loolooy fa kalaamun loolu nag bu amee fa mawidun day ñëw mawidun mooy rendez-vous ci arab mawidun mooy rendez-vous rendez-vous bu amee Ahmed Khalifa déglu ma rendez bu amee faliqaa dajee dajee nag ku ne xam na la fay xew yii lu jara moytu la lii mooy njaaloo mais benn téere sharia jàngalewul ne maanaam am nga droit ëmbal jabaru jàmboro foo ko teg foo ko teg waaye c'est hunta waay